sëriñ bu baax bi fi newoon ba ñëpp xam na kenn la. bismillah barke borom Touba mbokk yi kuréel takku defar daaru ñu ko taxawal depuis avril 2020 mu ngi tolloo ak léegi ci juróom-ñetti weer kuréel gi nag lii seen yitte mooy soppi xar kanamu dëkk bu sell wi di Daarul Moxti ak ay projet yu am solo seeni projet nag ñu ngi ko répartir ci ay phase phase 1 bi li ci ñu jot a réalisé comme projet mooy ndimbal yi nga xamante ne defoon nañ ko ci ceeb ak diwlin ci lu tolloog juróom-ñetti fukki buntu kër deuxième projet bi mooy reboisement bi ñu defoon ci pencub Daarul Moxti defoon fa téeméeri garab ak lu topp ci ay cocotier ak juróom benn téeméeri herbe yoo xamante nañ ko séddale ci biir daaru troisième projet bi mooy pompe bi ñu defoon ngi désinfecté bi dëkk bi après ci lañ boucler phase 1 bi waaye laataa ñuy boucler phase 1 bi ku ne xam na ni jamono dafa tombé jamonoy mbas bi di coronavirus ci la sëñ Mountakha Al Bachir joxe woon ndigal ci murit yi ñu jaayante 5 millions de masques naka noonu ci la kuréel gi jaayante 6 000 masques séddale ko ci biir dëkk bi. phase de bi premier projet bi nga xamante ni commencé nañ ko waaye dañ bëgg mu wéy bii daaral moxti mooy wàllum adhésion d'eau maanaam ñi nga xamante dañoo am jafe-jafe ndox robinet ci seen biir kër tàmbali nañ ko ci lu tolloog fukki kër ak ñaar deuxième projet bi mooy wàllum daara yi ku dee xam na ni daara yi soxna Kunte Mbàkke mu sëñ Fàllu Mbàkke dafa nekk lu symbolique bii Daaru Muxti ndax depuis 1989 ba léegi daara ji mu ngi tàggat ay kàngam ci wàllum xam-xam kuréel gi nag jot na cee barkeelu ci liggéey daara juróomi tonnu ciment waaye fas yéene kaa yamal ci daara soxna ko tëggoo kese fas yéene naa dajal bépp daara bu nekk bi daaral moxti ak képp ku bëgg a jàngal ñu fexe ba sampal la mbaar wala lépp lu daal di teewoo lu ci mel ni ay bassin wala ay sanitaire wala lépp lu ndoog nga daal di tewoo lu ci mel ni yére dàll ak ndund ci biir phase 2 bi nag kuréel gi def cee am ay grands projet yoo xamante ni ba léegi mun ciy def ay jéego lu ci mel ni maternité pédiatrie wala hôpital. wàllum njàngum nasaraan bi nag kuréel gi am na ci ay xalaat yu am solo ba tax na taxawal na benn commission boo xamante ni commission pédagogique la ngir ñu fas yéene ànd ak ñoom ci lépp luñ soxla ci seen njàng lu si mel ni ay concours ak yu ni mel ba si wàllum orientation yi tamit kuréel gi dina fexe ba képp ku am say lijaasa lu ci mel ni bag ñu fexe ba yóbbu la bitim réew nga yeggalee fa say jàng ci anam bu mucc ayib. ba tax na ñu ngi tàllal loxo mbokku taalibe yépp ñu jàppaat kuréel gi bu baax ak bépp bon volonté bi def ngir yàlla tax ndax daaru jëm ca kanam sak la ci bépp murit wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu fi dawal da